الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نيجي سانت بروم سبحانه وتعالى لجل julli صلى الله عليه وآله وسلم wa alihi wa sallam رجل dénk سبحانه وتعالى ak bàyyi xel jàngalinu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam si suñuy wax si suñuy pas-pas ak si suñu mboole mi jëf mbokk yi mboole mu cant yi ñeel na borom subhanahu wa taala amu ci benn ndant borom subhanahu wa taala moom mooy yëkkati tar-tar ak xat-xat yi nga xamante ne doomu aadama yi dañ koy jànkonteel saa yu ko soobee yàlla su borome subhaanahu wa taala moom mooy wàcce alxays muy taw ak lépp loo xam ne barke la muy bàyyi ko ci kaw asamaan yàlla subhaanahu wa taala ci yërmandeem moom mooy saxal gàncax gi kon nañu sant mbokk yi borom subhaanahu wa taala ci xéewalam yi nga xamante ñu jeex moo xam ne te feeñ wala yoo xam ñun xamuñu ko mbokk yi ñu xam ne ndox wala bu la neexee nga ne taw xéewal la ci xéewalu borom bi subhaanahu wa yi nga xamante ne daf koy wàccee ci dëkk yi waaye di ko wàccee ci jaam ñi di ko wàcce ci gàncax gi loolu nag dañ ci am ay taxaw seetlu bi ci jiitu mooy ne borom subhanahu wa taala dafa def ndox nekk sabab ci dund fii ci kaw suuf yàlla subhanahu wa taala ne wa jaalna min almaai kulla cheyin xay lépp loo xam ne mu ngi dund rek ci ndox lañ ko dundalee lépp luy dund ci ndox lañ ko dundalee moo tax boo xoolee doomu aadama ñi nga xamante ne ñoom ñooy yittewoo ay mbiram ci wàllu science dañuy wax li nga xamante ne quantité bi nekk ci doomu aadama ci ndox bi tax doomu aadama di dund danaka bo xolé li ëpp genn wàllu doomu adam lépp ndox la lolu mo wax doomu adam di dund nako non yit gox yi dëkk yi borom subhanahu wa taala mu ngi leen di dundale natal leen ci li nga xamantene mom moy ndox mara borom subhanahu wa taala waxaat ne wa anzalna minas alsamaai maan tahura ñun ñoo wàcce mu ko ci kaw asamaan maan tahura maan tahuran mooy ndox moo xam ne ci boppam daa laab waaye mën a laabal laab na mën nañ ko jëfandikoo ci lépp waaye dafa mën a laabal doomu aadama ci li nga xamante ne moom mooy ay sobe mu ne lu tax ñu def ko ngir ñu dundal ci ay dëkk yoo xam ne dañoo deewoon kenn amatul ci ñoom yaakaar waaye ngir ñu nàndal leen dundalaat leen jox nit ñi ay xéewal ñu mën a xéewlu ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala mbokk yi ñaareel bi mooy ne taw benn aspect la ci li nga xamante ne moom mooy yërmande borom bi subhanahu wa taala bi yàlla di yërëm jaam ñi ak dëkk yi yàlla subhanahu wa taala ne wa huwa alladi yunazzilu alghayth yàlla subhanahu wa taala moom moo wàcce taw yenn borom xam-xam tafsir nag dañuy wax ne alghaytha weesu na taw sax taw ci la bokk waaye lépp loo xam ne mu ngi wàcc am barke jóge ci kaw asamaan ñun ñoo wàccee ci kaw doomu aadama yi ak ci dëkk yi ndox ginnaaw bi nga xamante ne dem nañ ba naagu ba amatuñ yaakaar ci li nga xamante ne moom mooy barke bi wàcc ci kaw asamaan yàlla subhaanahu wa ne man maay tasaare sama yërmande ndax man maay ki nga xamante ne rek man ngeen war a sant ñetteel bi borom subhanahu wa taala wàccee bi muy wàccee taw ci kaw suuf loolu tegtal la ci ne borom bi subhanahu wa taala ni mu ko waxee ci alquran ci noonu lay dekkalee ñi nga xamante ne génn nañ àdduna faatu nañ ñu suul leen noonu la leen di dekkalee bés penc kon loolu ay exemple la yoo xam ne nit ki war nag cee xalaat bu baax a baax moo tax mu ne wa taral arda haamida فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت يجي السوفسي بوكون دال واي بس بنتي واتي نخ دغاي غيس مو كوماسي فونكي اكسبلوزي اكسبلوزي مانام ген ليغا خامتاني موم ماي غانتاخ نيه نغا غيس بيب غانتاخ دي صح دي ген nee na loolu ngeen war a xam ne borom bi subhaanahu wa taala moom mooy ki nga xamante ne moom moo ko def te mooy kii nekk fii moom moo fii des waaye képp koo xam ne yaa ngi ci kaw suuf nekk mbindeef da ngay faatu génn àdduna te nee na wa annahu yuxyil mawta nee na noonu la borom bi subhaanahu wa taala di dekkile ñi faatu woon wa annahu ala kulli cheyin qadir te yàlla moo am kàttan ci lépp kon taw bi dañ cee war a jëlee it ay aaya dañ cee war a jëlee ay enseignement dañ cee war a jëlee ay jàngat dañ cee war a waaru ci li nga xamante ne borom subhanahu wa taala mu ngi koy wax ne doomu aadama yi dina leen dëkkil ëllëg yowmal qiyam kon boo gisee borom subhanahu wa taala wàccee taw am luy génn mu jox la misaal yonente bi alayhi salatu salaam dëggal ko ndax yonente bi alayhi salatu salaam nee na ci benn xadis xadis bu wér bu ñu demee ba ñépp faatu ba ñu suul leen borom bi subhaanahu wa dina des ñeen fukk xadis bi loolu ñeen fukk ndax ñeen fukki bës la ñeen fukki semaine la ñeen fukki weer ñeen fukki at xadis bi leeralu ko nee na dina nekk ñeen fukk di bàkku li mañil mulkul yawm li mañil mulkul yawm borom bi subhaanahu wa taala di ko wax kenn du tontu lépp ne selaw dem ba mu soob borom bi subhanahu wa taala mu ne lillahi alwahidi alqahaar borom bi subhanahu wa taala dong moom mooy buur yonente bi alayhi salatu salaam nee na noonu nag ci la borom bi subhanahu wa taala di wàccee ab ndox mu niroog ndox mi nga xamante ne moom mooy génn ci góor dem ci jigéen nee na ndox moom bu wàccee nag ci la nit ñi nit ñiy dekki misaal boobu la joxe ci li nga xamante ne moom mooy taw kon jullit bi mu war cee bàyyi xel bu baax a baax mu ne wa anna saata aatiyatun لا ريب فيها wa anna allaha yabaathu man fi l qubur nee na heure ba bés ba yowmal qiyaam dafay taxaw amul benn sikki sàkk te yàlla dina génne képp koo xam ne dangaa dëkkee woon ci ci bàmmeel yi mbokk yi xéewalu ndox xéewalu taw dafay xëcc dafay waral ñu sant borom bi subhaanahu wa taala dafay waral ñu gëna gor gor lu ci jaamu yàlla borom subhanahu wa taala da fay waral nit ñu gëna gor gor lu ci wétal borom subhanahu wa taala bañ ko bokalé ak dara yàlla ne afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun tashrabuun xool leen misaalu ndox mi ngeen di naan xool leen misaalu ndox mi ngeen di naan a antum anzaltumuhu min al muzni est-ce que ndox moomu yéen a ko wàcceel seen bop wala ñun yàlla ñun ñee ko ñun ne len ko waccel yàlla subhaanahu wa taala ne bu ñu sooboon ñun yàlla bu ñu neexoon ñu def ko mu weex xat du ngeen ko mën a naan waaye mën ngeen ko naan kon nag na ngeen sant borom bi subhaanahu wa taala na ngeen wéetal borom bi subhaanahu wa taala ci seeni wax ci seeni pas-pas ak ci seeni jëf yàlla subhaanahu wa taala ne alladi jaala lakum al arda firasha mooy borom bi subhaanahu wa taala mooy ki nga xamante ne moo leen tàllalal suuf si ngeen ciy dox te du ngeen daanu wassamaa binaa mu defal leen asamaan si ndox mi di ci wàcc mu nekk tabax nee na moom moo wàccee ci asamaan soosu nag maa an fa axraja bihi min athamarati risqan lakum ci ndox moomu mu génne ci gàncax génne ci ay meññeef ngeen ciy xewlu kon nag fala tajaalu lillahi andaadan wa antum taalamuun bu leen wutal borom bi subhanahu wa taala ay ndend te ngeen xam ne borom bi subhanahu wa taala amul benn ndend mbokk yi juróomeelu tomb bi mooy ne bu ñu demee nag ba ay bàkkaar tasaaroo ba nit ñi de mooy borom mi subhaanahu wa ba ñaaw teefi ñu koy fësal ndox mi buy ñëw dafay àndaaleeg ay mbënd lu ñuy tuddee inondation du ñàkk bu fekkente ne nit ñi ñu ngi ci yooyu donte nag loxo doomu aadama it ñu ngi ci ndax borom mi subhaanahu wa taala laa bind may la xam-xam jox la ay jumtuwaay jox la xarala nga war a defar sa dëkkuwaay am na ci yoo xam ne bakkaar yi ñoom ñoo ko waral waaye am na ci yoo xam ne it sabab bi bakkaar yi la waaye yàlla borom mi subhaanahu wa taala jaare ko ci doxalinu doomu aadama yi jaare ko ci doxalinu doomu aadama yi ndox yàgg naa wàcc inondation yàgg naa am waaye fu muy amee fépp lu fa ëpp mooy dañoo mooy borom bi subhaanahu wa taala dañuy bokkaale borom bi subhaanahu wa taala dañuy fësal ay mooy yàlla kon mu jaadu nag jullit ñi dellu jaamu borom bi subhaanahu wa taala mbokk yi daaw rek ñun ñëpp dañoo daje fële ca terrain bëre nekk ci stade bële di baaw naan di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu wàcceel ñu ndox ren kenn taxawu fa ngir ndox mi ni mu waaye ñëw na jàmbat bi bëri ngir ne nangu na ay kër yu bëri est-ce que duñu xalaat loolu lan moo koy waral ndox dafay ñàkk fekk ay bàkkaar moo ko indi ndox dina am it def ay dégâts fekk it ay bàkkaar moo ko indi te it yàlla borom subhaanahu wa taala jaarale ko ci suñuy moroomi doomu aadama ñoo xam ne dañ ñoo waroon liggéeyal te liggéeyuñu wala boog li ñu waroon liggéeyee dugal ko seen poche loo xam ne alalu ñépp la ñu jëriñoo ko ñoom dong ana ci ay réew yoo xam ne dafay taw 9 mois sur 12 jëlal rek exemple Burkina Faso bële ay canal wala way ay canaux yu baree bëri lañ yore ndox mi bu tawee da nga gis ni mu bari lool waaye bu jeexee ndox mi dem na bal sax ñoom dañuy garder ndox moomu ana ñaata milliards la ñu def ci inondation yi ba léegi ñun ñaa ngi ciy loru loolu nag population yi war nañ ci bàyyi seen xel ci war a dellu tuub ci borom mi subhaanahu wa taala waaye njiit it nañ ci ragal borom mi subhaanahu wa taala comme ni ko yonante bi alayhi salaatu wasalaam waxee yowmal qiyaam bu taxawee nit ki du séqi ay jéego lu dul dinañ ko laaj ay mbir bokk na ci yooyu alalam fan la ko jëlee fan la ko jëlee maanaam ndax dagan na ak fan la ko dugal yonante bi alayhi salaatu wasalaam waxaat ci beneen xadiis ne ñu bëree bëri ñu ngi laaj di jiite ñu ngi laaj ñu dénk leen ay responsabilité ñu ngi koy yenu waaye ñu ci ëpp safara lañ koy yenne lañ koy yenne ko yàlla ñu ci borom subhanahu wa taala musul yàlla subhanahu wa taala mu ne wa laqad arsalna nuuhan ila qawmi ñun ñoo yenni woon nuux ci xeetam fa labisa fihim alfa sanatin illa xamsiina aama mu ànd ak ñoom di leen woo junni at yu manqué juróom fukk junni at yu manqué juróom fukk نوح دنكو يرم مي ناتلي برامي سبحانه وتعالى مي ناتلي نوح لم دون وخ سما خيت دي وانا لين سي انام بو نيك وانا لين سي ني نك مبولو وانا لين كين بار كين وانا لين غودي وانا لين بيچك واي دار يالا سبحانه وتعالى ني بين لين نامي الك فاخذهم الطوفان comme ni ngeen ko xamee yéen ñëpp yàlla subhanahu wa taala ci ndox la leen alage wa hum zalimun te jamono jooju dañoo tooñ borom subhanahu wa taala nuuru ci ay bakkar ci beneen aaya mu ne falamma asafuna intaqamna minhum ñi nga xamante ne dañ doon mooy borom subhanahu wa taala biñ demee ba borom subhanahu wa taala xaar leen xaar leen xaar leen nee na ginnaaw fa agraqnaahum dañ leen labal ajmain ñoom ñëpp bàyyiwuñu kenn borom boobu borom bi subhanahu wa taala moom mi nga xamante ne moom mooy alxayul qayyum moo fi nekk ba léegi kon loolu jara xalaat la yenn saa dina xiin lool nit ñi yaakaar ne taw moom moo nar a wàcc waaye ay xeer mën naa wàcc leneen mën naa wàcc ndox mën naa wàcc indi musiba donte ndox yërmande la waaye ndox mën naa wàcc indi loo xam ne dina baax ci ñenn ñi waaye dina indil ñenn ñi jafe-jafe loolu yëpp nag dafay dellu ci suñu taxawaay ci santaane borom bi subhanahu wa taala mbokk yi ndox buy wàcc nag tey ànd ak ngelaw ci juróom-benneelu tomb bi dañuy yoonal ci nit ki muy ñaan xam ngeen ne jullit bi moom lépp luy mënta xew lépp lu mënta am ci wàllu àdduna mën na cee yem ak yéefar ba ak ki gëmul borom bi subhanahu wa waaye loolu moom mën na kaa wëlbati ba loolu nekk jaamu yàlla ci moom lu mel ni ay ngelaw yu ëpp suñu yaay Aïcha radiallahu anha mu ne yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa aada woowoon bu ngelaw di upp mu ne allahuma inni asaluka xayraha yàlla ma ngi lay ñaan maa ngi lay ñaan yiw bi nekk ci ngelaw lii yiw bi nekk ci ci ngelaw lii am na ngelaw yoo xam ne ñun àggul fii ci suñu gox yi waaye jamono yii booy xool ci information yi da gis am na yenn gox yoo xam ne ñu ngi sonn lool ci lu ñuy tuddee ay ngelaw yu metti yoo xam ne dafay ànd ak taw waaye ñu ëpp ci ñoom duñu ay jullit li ñuy xalaat mooy lu ñuy tuddee barricade yi kër yi wala buñ ko mënul ñu génnee leen évacuer leen yóbbu waaye jullit bi lu mel noonu boo amee li jiitu li mu war a def moom mooy dellu ci borom bi subhanahu wa taala xamne li li ñëw jam la ci jami borom subhanahu wa taala yàlla subhanahu wa taala mom moko bind yonente bi alayhi salatu wasallam lim jangal moy nga ñaan yàlla mayma yiw bi nga xamantene mom mo nek ci ngelaw li wa khayra ma fiha wa khayra ma ursilat bi ak li tax ñu yonne ko wa a'udhu bika min sharriha bu dee ay ay yi ci nek ma ngi lay muslu ci ay yi ci nek ci ñaawteef si nekk ak ci li tax ñu ñu yónni mbokk yi dañuy yoonal it ngelaw bi taw buy wàcc buy taw ci fi muy tàmbalee rek comme ni ko sunu yaay Aïcha radiallahu anha nattalee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu taw bi commencé woon sóob rek dafay naan allahumma sayiban nafia yàlla ñu ngi lay naan mu nekk taw yërmande mu nekk taw boo xam ne njëriñ la ñuy indil dañuy yoonal it bu fekente ne dënu mu ngi am amna ñaan yët yi ñuy ñaan te dënu bobu tasbih la da fay sàbbaalal borom subhanahu wa taala abdullah ibn zubayr radiyallahu anhu mom dafa aada woowoon di wax bu fekente ne dënu amna subhanalladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdi mune ma ngi selal di sabbal ki nga xamantene dënu bi limuy yuxu da fay sabbal borom subhanahu wa taala والملائكه من خيفتي تنكون لي ملائكه دنج كاي سابال غير رغال بيغا خامتاني موم لنج كو رغال نانا دا تيتون تك نك ان هذا لوعيد شديد لاهل الارض لينك اب توكل اب توكل بو خامنا بروم سبحانه وتعالى تي توك واسوف دلان تي افيرتير دلان تي افيرتير آه، تي ليغا خامتاني تي لاج نيك تي اي بكار اك موي سبحانه وتعالى آه، حديث باب الشيخ الالباني ويرول نكو al adabul mufrad naka noonu dañuy yoonal ñaan jamono ji nga xamante ne taw mu ngi wàcc ñu bëree bëri si ñun duñ ci bàyyi xel day commencé sóob rek génne nañ suñu parasol wala parapluie commencé daw walla yëkkate nañ suñuy yëre daw nañ ñu ngi suñu oto taal nañ essi glace yi bàyyi nañ duñ ci bàyyi xel waaye loolu yëpp mbokk yi jullit da cee war a bàyyi xel am na ay ñaan yu ci nekk jamono ji nga xamante ne mu ngi taw bokk na ci place yi nga xamante ne borom bi subhanahu wa taala du ci delloo ñaanu jullit bi da koy nangu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne ci hadisu saad ibnu saadin asaaidi mu ne yaara gi nii kenn du leen delloo ki nga xamante mu ngi ñaan jamono ji nga xamante ñu ngi nodd wala noddu ak liqaam nee ki fay ñaan yàlla subhanahu wa taala dafay nangu sa ñaan wa taxtal matar ak jamono ji nga xamante ne it mu ngi mu ngi taw beneen sunna boo xam ne it ñu bëree bëri dëddu nañ ko mooy yoonal nañ buy taw ñu boole tisbaar ak takkusaan ci julli wala timis ak gee abdullah ibnu abbas radiallahu anhuma mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam boole woon na tisbaar ak takkusaan jullee ndoo leen ci benn waxtu mu boole timis ak gee julleendoo leen ci benn waxtu ci madina te jamono jooju amul lenn lu ñuy ragal maanaam benn danger amut wala matarin te tawul woon sax kon li ngi ciy jëlee mooy bu danger amee mën nañ boole julli waaye bu taw amee it mën nañ boole julli te loolu mooy sunna yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu nekk yoo xam ne it dañ kaa war a dundal ibnu abbas gaa yi laaj ko ma araada ila dalik yonente bi lan la lan la namm ci loolu lan la ci jublu mu ne araada an la yuxrija ummata bañ a sonal xeetam moo tax mu def loolu bañ leen teg loo xam ne ay lu diis la moo tax ñu mu yoonalal leen ñu boolee tisbaar ak tàkkusaan boole timis ak géey mbokk yi beneen bi nag mooy bu fekkente ne taw dem na ba bari ban comportement la jullit bi war a am est-ce que dañuy ñaan mu bañ a taw déedéet comme ñu bëree bëri si ñu li ñuy naan waa dakaar soxla wuñ taw waa dakaar ñoo gën a soxla taw waa Dakar ñoo gën a soxla taw jamono ji boo xoolee ci àdduna boo xoolee ci àdduna li gën a yëngal àdduna li gën a tax ñi jiite àdduna di daje mooy li aju ci li ñuy tuddee climat li aju ci climat mooy waral ndaje yu bëree bëree bëri di am pétrole faaleetuñ ko daanaka soxlaatuñ ko li ñuy wut mooy li ñuy tuddee l'économie verte te loolu li koy waral li koy indi moom mooy taw ci la bokk wala bokk na ci li ëpp lii indi loolu ñoom demoon nañ ba li nga xamante ne moom lañuy soxla mooy li ñuy créer ci li ñuy wut ci wàllu pétrole ak ci wàllu gaz ak leneen waaye gis nañ ne yenn problème yi am foofu la jóge nañ dellu nag ci lu ñuy tuddee l'économie verte kon jullit bi du ne bu mu taw waa dakaar soxla lañ taw dakaar ñoo gën a soxla sax taw waa kaw gi man noonu laa koy mën a waxee donte waa kaw gi soxla nañ ko ndax taw bi moom mooy indi barke bi nga xamante ne ñun ñëpp ci la ñuy dund waaye gàncax fi mu bëri fi mu gën a bari foofu la wér-gi-yaram di ëppee fu mu gën a néewee foofu la feebar yi di ëppee ndax li nga xamante ne moom la sa xëtër yi di soxla ci li nga xamante ne moom mooy air pur fi muy jóge mooy ci garab yi bu fa ñàkkee rek di nga ñàkk lu bëree bëri moo tax du yell mukk ci jullit mu ne bu mu taw waaye am na façon bu muy ñaanee yonent bi sallallahu alayhi wa dafa ne jullit bi dafay wax ci làmmiñam te mu fas ko ci li nga xamante ne moom mooy xolam ci li nga xamante ne moom la war a wax ci xadisu anas ibnu malik mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa doon xutba ben bésu àjjuma jékki-jékki nit ñi yuuxu woo ko ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndox de manqué na garab yi daanaka dundatuñ jur gaa ngi dee ñaanal borom bi subhaanahu wa taala mu may ñu dox yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne allahumma asqina allahumma asqina Yalla may ñu ndox yàlla may ñu ndox saxaaba yi ne gisuñu woon ci kaw asamaan ci niir waaye rek gis nir di dajaloo di formé wu taw bi commencé wàcc ne yonente bi alayhi salatu salaam bi muy wàcc ci minbar bi pour julli tàmbale naa taw nee na ba ñuy ñibbi ñoom ñëpp dañoo seen kër nee dañu di taw di taw ba ajjuma ñëwaat yonente bi alayhi salatu salaam di xutba ñu na yonente bi alayhi salatu salaam ñaanal taw bi sonnal nañu kër yaa ngi màbb jur gaa ngi dee yoon yi xotteeku nañu amuñ fenn fuñ jaar men yonente bi alayhi salaam muuñ ree taxaw ne allahumma xawaalayna wala alayna yàlla defal taw bi wër ñu bañ dugg ci li nga xamante ne moom mooy dëkk bi dëmb kenn ci tullaabi almi yi mu ngi doon wax ne est ce que dina dagan ci jullit mu ñaan ne yàlla bu yàlla bu Dakar taw mu ne déedéet lii lañ war a ñaan lii lañ war a lañ war a ñaan na taw mi taw bi dem foo xam ne fa lañ ko soxla mu bañ a ñëw ci biir dëkkuwaay yi jullit loolu la war a ñaan waaye warul ñaan bu mu bu mu taw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la loolu la jàngale benen bi mooy fukkeel bi ak ñaar mooy nag ci lu mel no ci lu mel nii ci wàllu taw ak yeneen jullit bi na ci setal pas-pasam na ci leeral pas-pasam mooy lépp mu ngi ci loxo borom bi subhanahu wa taala taw yàlla borom bi subhanahu wa taala moo koy wàcce moo tax duñu askanele lu mel ni taw keneen ku dul borom bi subhanahu wa taala moo tax bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci xaditu zeyd ibn xaalid mu ne benn bés dañoo génn ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci amal xudaybiya nee na guddi googu maanaam mu taw ndox mu bëree bëri yonent bi alayhi salaatu wasalaam jullee ñu wala jiite ñu julli suba ginnaaw gi mu sëlmal jàkkaarlu ak ñun mu ne leen est ce que xam ngeen borom bi subhaanahu wa taala lan la wax biig ci guddi qaalu allahu wa rasuluhu aalam yàlla ak yonentam ñoo xam من برم سبحانه وتعالى دفن أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي نينا برم سبحانه وتعالى نينا أمن نخيتي تسمى جام نيو خمنا دن ما غم واي أمتي نيو خمنا دن ما وردي من هنا كيف كو خمنا دفن مطرنا برحمة الله منام توبي دفواتش تي يرمنا برم سبحانه وتعالى ci wërsëgi borom bi subhanahu wa taala ak ci ngeeneelu borom bi subhanahu wa taala ci la ñuy amee taw maanaam lépp delloo ko borom bi subhanahu wa taala nee na képp koo xam ne loolu nga wax fa huwa muminun bi kooku mooy ki ma gëm kooku mooy ki ma gëm kooku mooy ki may wéetal wa amma man qala mutirna bi najmi kada koo xam ne dafay wax ne bidew sàngam moom moo wàccee taw bi bi bidew sàngam moo tax mu taw moo tax foofu lu jar a bàyyi xel am na mbir yu saw yoo xam ne yenn saa jullit bi du ci bàyyi xel fekk mu ngi wax waaye mu ngi def ay erreur ñi nga xamante ne dañoo jàng météorologie ci wàllu xam-xam wàllu taw yenn saa ñu ngi def seen prévision lu jar a bàyyi xel la yàlla moo la may ab xam-xam nga jàng ko ba xam ne phénomène sàngam lii ak lii ñooy daje lii ak lii ak lii ñooy daje bu ñu dajee nag taw dafay am walla taw mën naa am teg ci nag ci kattanu borom bi subhanahu wa taala ndax yow jullit nga bokk ak ñeneen ñoo xam ne duñu ay duñu ay jullit teg ci li nga xamante ne moom mooy insha allah yonent bi alayhi salaatu wa képp koo xam ne da nga ne biddew sàngam moo tax taw wàcc ana ñun nag ñoo xam ne dañuy askanele taw keneen koo xam ne du borom bi subhanahu wa taala diw mooy borom bu ko xee mu taw bu ko neexee du du taw loolu kufru la waxuñu borom bi ki ko wax yéefar la de waaye kufru la wax ji si boppam kéefar la kooku da cee war a tuub mbokk yi loolu ay mbir yu sew la yoo xam ne yenn saa nit ñi dañ ci bàyyi xel ci phénomène yu mel nii waaye lu jar a bàyyi xel la yu mel nii yàlla borom subhanahu wa taala la ñuy askan amul kenn ku ci am kàttan moom dong moom moo ci am kàttan moo tax yonente bi alayhi salaam ne borom subhanahu wa taala nee na képp koo xam ne nee na biddéew sàngam moo tax mu taw fa huwa muminun bil kawkab كوكو biddéew yi la gëm kaafirun bi kooku daf ñoo weddi gëmul borom bi subhaanahu wa taala allahumma هنيئا مريعا مريعا غدقا واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين اللهم صيبا نافعا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين